bés bu yàlla sàkk ci jaabante lay yendu di ci fanaan bu guddi jotee ma wuññeeku waat ci mbedd ma fanaan fa waaye li ma la baik anyola yo jogol yo day nalaw ni rek ma xey way bi bu bax bi la fay bi kay def fo mol ge dama lay defal chèque 500000 francs pour la donte sa benn guddi la man ak yow ñu nekk parce que mi ya xawma lan dama la bëgg yow léegi yow mën nga bëgg jàppee sa benn bordel yow mën nga bëgg jàppee sa benn tànga yow Issa est ce que yow dama la nguróog loolu gis nga li waaw caabi ban caabi la porte bi waaw am xam nga lu tax ma jox la ko xale bi fii lay fanaan <laughs> waaw cinq cent mille <laughs> cinq cent mille du ay kinding kinding du ay kandak kandak tata waaw kàggu naa la maa ngi dem foo jëm euh, daa mag sama benn néeg bi ñu bi ñu jëloon feene à côté soriwul léegi moom fan yëpp dafa ma fa woon il faut que man ma dem maa ngi moom ñoo ko jël di ko fay fay